Mamadou Goudiaby ñu ngi lay nuyu. leen di fay. yow ngay secretaire général euh, centrale syndicale OGTS. Mhm. secrétaire honoraire également bu UDT bu Dakar Dem Dikk. Euh, ah. tey ñu gis ne secteur du transport dafa paralysé lu waraloon mhm. justement grève boobu nga xam ne ñu bëri dañ ko dañ cee bokk. waaw ñu bëri dañ cee bokk euh, grève bi li ko waral mooy lu bëri dañ ko nëpp nëppal ba lépp tuuru tey nëpp nëppal parce que plateforme déposé woon nañu plateforme bu revendication ci jàngoro yi transport yëpp mm-hmm. depuis deux mois mm-hmm. bu ñu kenn wuyuwul bu fekkee ne farluwuñ parce que damay dégg ñuy naan ministre bi woote na mais bu ci farlu woon mm-hmm. waxtaan dina am waaye woote benn yoon wooteetoo mm-hmm. mooy xeebeel dafa amoon dañu mësoon a yaakaar ne grève du réussir parce que ñun dañoo déggoowul waaye ñi dem boo xam ne ñëpp sonn nañ mm-hmm. ah, déggoo dina am man ci sant ci syndicat ci euh, grève bi bokk naa ci en tant que mm-hmm. parce que maa ngi sama njaboot am na njaboot ci taximan yi am na njaboot ci car rapide yi am naa njaboot ci aftu Mm-hmm. ci aftu Adama Adama Ngom moo ma fa nekkal. Mm-hmm. Euh, te bokk na ci njaboot yi te ñoom man bu ñu bokkee ñoom ñu nekk sama njaboot waa aftu. Mm-hmm. li ñuy njëkk ñaxtu bu négociation amee mooy contractualisation maanaam liggéeykat aftu amuñu contrat amuñu duñu leen teel euh, euh, allocation familiale Euh, a caisse de sécurité. Mm-hmm. te loolu euh, ñoom seen grève bale ba ñu defoon waa AFTU. Mm-hmm. ñaari points yi ñoo ci gënoon a fës mais am na yeneen point léegi nag transport bu paralysé wu AFTU mii am problème dina bokk ci problème bi. Mm-hmm. loolu moo tax ñun ñu bokk sama njaboot a fa nekk looloo tax man bokk naa maa ngi ci biir. et justement bi mooy ci plateforme bi. ci plateforme bi. <coughs> seetlu ngeen dañoo agressé waa transport ci lu bari. d'abord. document yi nga xam ne jumtukaay yi nga xam ne euh, transport loolu la gën a moom moo gën a soxal transport te ku bëgg a def transport mm-hmm. mooy carte grise licence euh, plaque d'immatriculation visite technique mm-hmm. yooyu yëpp boo jëlee par exemple euh, plaque d'immatriculation jógee dix mille ba quarante mille ak yooyu mais loolu ba pare ñu jox ko benn tubaab ay tubaab ñoo xam ne jëlee fa ay sénégalais ñi doon góorgóorlu foofu jox leen ko à tubaab waaw quarante mille yooyu. bi bi Séné bi fa Sénégalais yi nekkee lu tax àggu fa. Mm. ñoom au moins sax mu dellu ci biir Sénégal. waaye xaar dem bi jëli benn tubaab ba pare muy cher. jël leen jël euh, kii bi nu mu tuddati euh, carte grise yi. Uh-huh. ah yu bees yi ñuy defar. permis yi ñuy defar yu bees. te lépp gën a cher. yooyu yëpp il faut ñu def beneen bi. Mm-hmm. mooy euh, wàllu tracasserie. boo xoolee transport mbirum transport dafa désorganisé wu complètement désorganisé wu mhm. ji yow euh, ngay secretaire général honoraire bu UDT nga yoroon tamit benn syndicat euh, liggéey fa euh, foofa ca Dakar Dem Dikk maanaam transport public lan nga ñu mën a wax si jafe-jafe ci secteur boobu waaw secteur boobu ñun ñun bu dul woon jàmp bi mu bi yëf yi jàmp dem fekk ji leen mhm. maanaam Euh, xam nga Dakar Dem Dikk société formelle la structurée bien structurée. Mm-hmm. il faut nga déposer préavis nga dem préavis de grève nga def d'abord il faut nga dem inspection nga non non conciliation nga am préavis ba préavis mi am un mois yooyu yëpp sore na mhm. waaye euh, grève Dakar Dem Dikk moom euh, bokkom ci grève bi mooy car yi dow doyut état ci boppam moo grève loo Dakar Dem Dikk kaar yu doyul euh, grève bi li ko mën a gàllankoor du am doole alors donc ñun pour ñun aussi ñun am nañu ay problème waaye loolu ci kanam dina ñëw yàgg-yàgg dinañu préparer wu pour ñu bokk ci ay grève yu mel nii parce que secteur transport secteur transport lii lii lii lii lii lii lii lii lii laal kenn ki laal na euh, keneen ki mm-hmm. euh, mais jàngoro yi foofu Dakar Dem Dikk mm-hmm. man xam nga deux mille deux mille euh, dama dem dam may balaa may laata dem retraite mm-hmm. dama xamoon lii yëpp def trente trois ans de de de d' expérience à ci biir transport ma bindal leen benn mémorandum weccoo ko ak euh, sama syndicat boobu UDT bi nekk ci biir. Mm-hmm. ci mémorandum bi wax naa leen lan mooy pérenniser entreprise maanaam man lan mooy lan mooy tax kër gi dund. Mm-hmm. mu bañ a dee. Mm-hmm. naa leen. la la mooy il faut que mu am euh, li état waroo ak Dakar Dem Dikk mu jëfee ko. maanaam compensation yi. am na sax benn décret décret ministère des finances bi wax naka la ñuy fayee compensation yi mhm. kenn appliqué wul de arrêté boobu mhm. arrêté ministériel boobu mhm. parce que état daf ñuy fay ñu compal ñu dencal ñu li ci des man ñun laajuñ ko mu denc mu compal ñu mu daa laajuluñ ko ñun soxla nañu xaalis yuréet pour ñu mën a def suñuy investissement maanaam ñu entretenir car yi ñu bañ a panne ñu mën a euh, jënd yeneen car wala bokk ñu mën a ñu mën a euh, am suñu suñu pet suñu gasoil du manqué. Hmm. ñu mën a fay suñu salaire du manqué. ñu mën a fay euh, caisse sécurité IPRES ak syndicat yi ak coopérative yi yëpp mat mais état day fay benn bor benn parti mu bàyyi benn parti or am na arrêté bu ko nee fee lépp Dakar dem dik bu ko dégg bu ko téyeti dara. Hmm. loolu amul. Hmm. kon état néewal na doole. subvention d'équipement. lu day ni Dakar dem dik soxla équipement yu bëree bëri bëri état ci loi état. ñu ne subvention d'équipement foog mu am kan moo gën a yeyoo Dakar dem yelloo Dakar dem dikk ay subvention d'équipement naka si loolu aussi le le budget consolidé d'investissement budget boobu mooy yoon dafa ne mm-hmm. ci société yi fi nekk pour ñu pour ñu euh, mën leen a maintenir yaxanal leen mm-hmm. il faut mu am benn budget de consolidé d'investissement ñun amoon nañu ay un milliard lañu daan jox joxoon nañu ñetti yoon un milliard ñu arrêté ko Dakar dem ci la commencé aussi am problème ah ñetti at ñaari at yi amuñu budget consolidé d'investissement yooyu yëpp dina am te euh, mbas mi bi mu fi nekkee mhm. Dakar Dem Dikk liñ ko waroon a jox ci compensation matul donc yooyu yëpp liir na donc problème yooyu bu amee secteur transport yëpp am problème dañ ko war a euh, saytu ñu xam nuñ koy defee jox yii ñàkk joxe euh, compensation ñàkk joxe subvention d'équipement ñàkk joxe budget consolidé dans le budget consolidé d'investissement moom moo néewal doole Dakar dem dikk léegi nag ku bees ki bi mu ñëwee. Hmm. ñun mémorandum bi ñu dugal. Hmm. le président Macky Sall ci boppam moo ko njëkk a aakimoo mu ne Goudiaby bi li nga def ci mémorandum bi. Hmm. xam-xam dëgg la dëgg la dëgg la mu woo directeur général bu bees bi. directeur général bi ne ko jot naa sama bos. mu ne ko jëfee li nekk ci mémorandum bi yëpp jëfee ko. li fa nekk mooy. donc euh, li fa nekk mooy dafa war a créer benn usine de montage ni AFTU di monter seen bus fii si Sénégal mhm. ñun ñu am notre usine de montage autobus waaye puisque jàmp na suñ kaar yi yëpp gaare na mhm. dañoo war a dañoo war a commander mille quatre cent bus bu ñëwee ki ñuy ki ñuy jaay bis yi mooy def service après vente ah moom mu nekk suñu partenaire stratégique mhm. ñuy ñu bokk ci si capital boobu dañuy am société de montage lu Dakar dem dikk am ta capital état am ta am ta am ta action ak kooku ki nga xam ne euh, euh, euh, notre partenaire stratégique léegi nag kenn dootul dem ci biti wuti kaar ñu defee ko fi ñun ñoo ko proposé mhm. beneen bi mhm. mooy nee nañu leen bi si Dakar dem dikk kenn du leen contrôler visite technique ak yeneen horaires yi léegi nag ñu ne pour que euh, kii wàññeeku accident yi wàññeeku mm-hmm. dañuy defar benn centre polyvalent centre bi ci biir visite technique day am ñun ak horaires yi ak bépp bus bu bu gudd foofu ngay defee sa visite technique état am ci wàllam ñun ñu am ci wàllam te visite privée technique privée lay nekk ci biir ci biir foofu mm-hmm. dana am centre de formation xam nga accident yi bëri nañ Mm-hmm. ñi mën a dawal kaar jëw rek ñu jox la bus nga dawal danga la war a yóbbu ci centre de formation bu Dakar Dem Dikk centre Dakar Dem ak coow bi lu mu bëree bëree bëree bëree déggoo Dakar Dem Dikk accident ba ñu rey nit d'accord donc ñooñu bu ñu ñëwee mm-hmm. centre de formation bi formé horaire yi daw diggante région yi ak Dakar mm-hmm. horaire yooyu képp ku war a dawal horaire da nga war a dem ñu formé la foofu d'accord bu mujj bi ci foofu dañuy centre international national mhm. de réparation des bus day defar oto Dakar Dem Dikk day defar bis n'importe quel bis bu bu fi nekk Sénégal mhm. day defar oto gouvernement bu ñëwee Dakar Dem Dikk ñu yaxanal affaire loolu bu amee mhm. day day day may Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk ay koom koom-koom bu ñëw yokku lañu am actuellement loolu mooy modernisation Dakar Dem Dikk d'accord donc yooyu yëpp bu amee yooyu yëpp bu amee bu ñu ko jëfewul Mhm. état nañu dimbali looloo tax état créé euh, nu mu tuddati directeur général bu bees bi créé li ñuy wax le programme d'urgence et de relance de l'exploitation PUR 1 passé na mais PUR 1 bu passé ci PUR bi lan la ñuy joxe dañuy ñoom ñooy fay salaire yi état ñoom ñooy def joxe gasoil mais aussi ci commande mille quatre cent bi su ci la bokk. d'accord mais pur un bi bu jeexee. pur deux balaa nga cee àgg. Uh-huh. nga def évaluation pur un. <laughs> mais ñu ngi bëgg soobu ci pur deux. pur deux te évaluation loola tax euh, Dakar taxaw fu mu ne nii Dakar euh, tey secteur public bi nga xam ne nekkoon nga ci wax nga ne dafa am problème secteur privé bi nga xam ne tey sa syndicat mu ngi ciy yëngu wax tamit ne dafa am problème ndax li ni mel wunduwul ne politique transport Sénégal dafa lajj. Exactement. La politique du transport au Sénégal est désorganisée. Mm. te désorganisation mooy indi laaj. parce que état mu ngi am plusieurs systèmes de transport. maanaam taxi o rapido euh, euh, aftu euh, Dakar Dem Dikk léegi lu bees mu ngi ñëw. Mm. mais boo jëlee les secteurs li nga xam ne moo fi nekk renouveler nañu fii taxi yi. renouvellement yi nii mu demee ak nii ñi war a jàppalee taximaan yi pour kenn ku nekk am sa moom sa taxi moomeel jàppale ñu leen ba ci ñu bëri dañoo laaj ñu bëri seen taxi dafa dafa dafa paan rek ñu taxi yi réer mm-hmm. alors que dafa waroon a am progressivement renouvellement de parc taxi yi pour que ku taxi am maget nga jël beneen continuer di fay taxi bi loolu moom parc renouvellement bi politique de renouvellement bi ci wàllu taximaan bi sooxee na baaxul mais politique de de de renouvellement des cars rapides yow da nga ne da ngay renouveler car car yi nga xam ne man judoowuma man bi ma judoowul laa am dama dem retraite car yooyu dañ ko war a changer ñooloo tax ñu indi aftu mais aftu liñ ci gis mooy ay GIE la ñuy créer GIE yi ñuy créer jëlatuñu wala nangootuñoo am ñeneen membre ñu war a dugg si te am na car rapide yu des. am na njagaaj jaay yu des. sànq yaa ngi wax ay assises yi nga xam ne war nañ koo mën a amal ngir organiser. secteur bi nga jàpp ne tey dafa tasaaroo. gis nga léegi nag lii nga xam ne moom moo nekk pàccakoo ci te mbirum transport. Hmm. pour ñu mën a yeggali renouvellement de parc taxi yëpp. ñu yeggali renouvellement de parc nja nja car njaga yëpp. te hmm. kenn ku nekk ku bëgg am sa car bopp nañ la jox car. Hmm. usine de montage autobus seen bus bi nekk Thiès. ku bëgg ñu jël sa oto bu bu màgget bi ñu jox la. Hmm. lépp euh, euh, euh, kii kii pa kii paan ak accident yi. Hmm. wàññeeku léegi nag état balaa muy laal TER ak BRT. Hmm. dafa waroon a fexe ba njabootam ci wàllu matériel. ak moomeelam matériel. njabootam mi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom moom Macky ñoom la fi fekk. te ñu téye transport transport bi. mu baax mu sooxe mais transport baa ngi fii nit ñaa ngi dem di dikk balaa ngay laal leneen loo xam ne ay milliers ay milliers milliards la jula la jural mais milliers milliards yooyu boo ko dugaloon ci car rapide taxi aftu Dakar Dem Dikk ma transport bi du sooxee fenn fenn fenn fenn mais nga jël ko dugal ko ci ñaari kuréel kese muy BRT ak TER baax na mhm. parce que dañ ko war a moderniser ñun sax baax na sax ñu am ay TGV fii au Sénégal mais day fekk lang fa am lang fi am mhm. ci ay jumtukaay nga fexe ba protéger ko employé bañ a dem moom bañ a naxasaay d'accord mais jël sa kattan yépp dugal ko ci berte ak terre te préparé woo nañu war a jëflanteel ak ñooñu parce que terre ak berte bu ñu ñëwee mhm. af ci dina sooxee Dakar Dem Dikk dina sooxee Euh, yeneen mot de transport dinañu sooxee. d'accord loola tax ma ne il faut mu am des assises des transport d'accord mm-hmm. bu ñu réglé bu ñu toogee ak transporteurs yi ñu réglé problème ñu jëkkee maanaam accords yi ak yi nga xam ne dafa jàmp mm-hmm. dañu war a wootee les assises du transport te assises du transport tey CETUD mi nga xam ne moo nekkoon arbitre moo nekkoon moo doon atte transporteurs yi ci biir Dakar kese. CETUD hmm. boobu dañ koy ériger en observatoire de transport ba nga xam ne moo war a atte transport bi ci biir ah, dëkk bi yëpp ci biir Sénégal yëpp. xam nga ministère de transport am na. Hmm. mais moom ministère de transport day day moom mooy fexe ni ñuy def ba jumtukaay ay mbedd ay chemin de fer ak yooyu mu mu mu dox ak yoon yi mais nag. loolu boo ko créé ba pare. Mhm. il faut que mu am ku leen di àttee seen biir. CETUD lool la doon def ci biir Dakar mais léegi problème nii dépassé na Dakar parce que transport interurbain Dakar dem dikk léegi mu ngi ci mais am na ñeneen ñu bees ñuy ñëw xaw ma nu mu lay woolee war gaynde xaw ma noonu la tudd <laughs> mais ñooñu il faut que ñu arbitrer leen seen seen seen diggante ñi ñi fi fekk ak ñoom ñi nga xam ne moderne ñu ñëw nañu. d'accord ba war gaynde yooyu. Uh-huh. am na ay bus de transport interrégional ma profité bëgg rek régler Jurbel te ñoo ñëw ba pare ñu ne ñoom duñu rang ci biir ci biir euh, nu mu tuddati ci biir garage yi ñoom duñu rang loolu yëpp ay atte la seen biir d'accord te loolu du yoon parce que parce que ñoom bu ñu indee ay bus yu bees taq dañu war a rang ñii ñëpp waaw mhm. ñooñu sax boole boobu laaloon naa ko mais dinaa ko gën a xóotal te ministère des transports ci boppam laay laay laay laay laay jàkkaarloo ak moom. incha allah du ñàkk ñu gën koo yaatal ñu nit ak yow. incha allah ñu lay jaajëfal bu baax a baax ma Mamadou Goudiaby. waaw man mii maa leen gërëm di leen sant.